kon buñ ko dee waajal ñu tase fii tey ngir waaj wàll gi nga xam ne administration moo ko ci war a taxawee su préfet wax fi wax ji nga xam ne moo chef de service yi fi nekk yëpp tënk boo xam ne mënatuñ cee teg lu dara lu weesu rek sant ci li weesu woon te am yaakaar ci ne lii ñëw incha allahu taala dana dox nam daan doxe te niñ koy séentoo danañ ko mën a defee noonu ci kàttanu borom bi subhanahu wa taala ci barke borom bis bi waaye nu xam ne rek bis da boo xam ne at mu jot dañ ko war a dogal mbubb mu yees ndax day màgg kon nag lu ñu waajoon daaw waaj ko daaw yéeg ren nañ ci yokk lu baree baree bari te xam ne incha allah noonu lay doxe sëriñ bi itam wax na ne euh, tawat yi nga xam ne moo fi nekkoon ba gàllankooroon ñu ñaari at yëpp defuñu ko te tegoon ko ci ndigalul Cheikh Mouhamadul Mountakha ndax xam nañ ne kër sëriñ Fallou këru ndigal la bu ndigal jógee rek dañ koy dal di jëfe ñuy ñaan yàlla jële ko fi nag ndax fi ne xam nañ ne wàññi ko ne mu ñaan yàlla jële ko ci Sénégal jële ko ci àdduna bi waaye teewut kër docteur wax nañ ne ba tey nañu sàmmanteeg li nga xam ne daawoon nañ ko sàmmante bu jëkk mooy ci takk masque yi ak ci ci ci mesure barrière yi ni ñu koy waxee ak li ñuy laal ci loxo yeeg lépp loo xam ne daal kër docteur wax ne na nañ koy jëfe sëriñ bi nee mu mi ngi koy fàttali mbooloo mi ñu jëfe ko ci ñu jëfe ci màggal gi di bis boo xam ne mooy bisu lislaam ndax ci la borom bi subhaanahu wa taala farataale woon julli jox ko sallallahu alayhi wa sallam muy ab sëriñ boo xam ne ba mu demee ca tukki bu màgg bu sell bu tedd boobee mu teral ko teraanga joo xam ne mësu koo teral benn mbindeef bi mu ñëw da ko joxale sëriñ mu indaale ko ci aw xeetam muy julli juróom bis boobu kon moom la ñuy màggal muy bis bu jullit yëpp bokk mooy bisu lislaam